bu fekkee ne daf ñu doon def ay appel yoo xam ne dañ ko mën a tuddee appel à l'insurrection lan moo tax procureur boobu ba léegi mu toog di ko seetaan di seetaan ay vidéom di gis ay ay texam euh, gendarme yi ak policiers yi wër këram ñu mën koo dem ni ciix yóbbu boobu ba léegi defuñu ko il a fallu attendre benn histoire vol de portable <laughs> suñ ko mën a tuddee noonu. pour ne dañ koy jàpp pour appel à l'insurrection. waaw xam nga euh, Ousmane Sonko moo nekkul n'importe kii xëy na Pape Sané wala man wala Pape Moussa. Euh, mun ñu wax dara ñoom ñu jàpp ne appel à l'insurrection la ci saa si ñu yebal mangook mais euh, pour cas Ousmane Sonko gis nañu ne euh, bu nekkee da nga ko jàpp mars deux mille vingt dëkk bi mm-hmm. tàkk. Mm-hmm. juin deux mille vingt trois nga prononcé verdict. Mm-hmm. dëkk bi tàkk donc kooku boo demee bay defaat ci moom leneen. lu euh, dem ci wàllu justice da ko war a xool xoolaat ko. Mhm. moo tax euh, euh, boo seetloo Moustapha mhm. à chaque fois que ñoom ñuy def sorti ci Ousmane Sonko pour man balaa ñu ko def dañoo war a xool conséquence yi nga xamante ni loolu mën na koo jur. Mhm. parce que déjà bu nekkee profil boobu ma dégagé nekk ci Ousmane Sonko. boo demee ba nga ne yaa ngi koy topp. wala danga nga ba nga dem ba yaa ngi koy teg loxo dafa war a nekk loo xamante ne nii ku ko dégg kat dina ne. Mhm. ah lii kat jar na arrêté. waaw mais tey est-ce que def nañu la différence entre vol ak confiscation <laughs> loolu mun na nekk débat. Mhm. Ousmane euh, euh, mun na ñoom mun nañoo bind ne Ousmane Sonko dafa sàcc téléphone <laughs> soxna si. Ah. ñoom ñu bind ko. Ah. Ousmane Sonko ne sàcc ma ko dama ko confisqué. Ah. parce que samay image dañu nekk ci biir. Mhm. boobaa du suliwaat beneen débat. appel à l'insurrection boobu nga wax sànq. Mhm. boobu tamit di suliwaat beneen débat. puisque bu nekkee ne ñoom dañoo sukkandiku. Mhm. ci post bi nga xamante ni nee nañ moom la son ko def tey. appel à l'insurrection amu ci. appel à l'insurrection mooy li Macky waxoon en 2011 mooy que dinaa mobiliser. deux cent mille jeunes pour ñu dem conquérir la pale wala mu ne Macky Sall su defee. Euh, Abdoulaye Wade violer la constitution constitution on va le déloger <laughs> kooku mooy intention wu jëlee fi président de la république par la force la loolu Ousmane Sonko dégguñu mu wax ko li muy wax. Mhm. te jàpp naa ne droit am la te dernièrement doon naa fi wax que Macky Sall opposé wu ak moom dafa métti. Mhm. puisque soo toogee yaru comme xalifa Sall. Mhm. bu paree ci yow chef de quartier dootoo ko doon bu nekkee ne da taxaw ne da ngay opposé wu boo moytuwul ñu yàq sa der di wax ne di la diaboliser comme quoi que tu as tu es violent par ci alors que. Mhm. bu ñu demee ba nekk ci politique surtout ñu ne kii. moom mooy le chef de l'opposition mhm. ñu mën a xaar ci moom discours boo xamante ne nii mooy discours bu lis muy caressé ñi nga xamante ni ñoo jor yor réew mi dans le sens du poil d'autant que mhm. dëkk bi gis nañu ne doxul jegewul bay dox. mais ma man man mën na bañ a lisse mais pas pas être radical à un certain niveau quand même. non ça ça dépend ci euh, euh, euh, radicalité bi. xam nga <laughs> grand bi Ndiaye mu ngi wax sànq ne. Mhm. justice dafa war a toll la ñëpp. ce n'est pas parce que Ousmane Sonko nga tudd que lépp loo def kenn du ko xool. Mhm. mais. <laughs> man yaa commenté loolu de. est ce que loolu laa wax non si loolu nga justice dafa war a tollool ñëpp. justice très bien. waaw tuddoo Sonko mais tuddoo da nga bëgg a wax ne. parce que ci contexte am la wax aussi bon. le fond de ma pensée c'est pas ça. waaw soo ko bëggul assumer rek garaawul ma ma ma wax. d'accord justice dafa léegi retenons que li mu wax mooy justice dafa war a tollool ñëpp. mais ñoom seen i seen i seen euh, i seen élément de langage. Hmm. souvent da li ñu ciy boole mooy force doit rester à la waaw parce que ñoom dañoo jàpp ne. képp kuy sénégalais te nga wàcc yoon. yoon boobu dafa war a dal sa kaw. ma d'accord ci ak ñoom. malheureusement lu ñu gis Sénégal mooy que. justice boobu. tolloolewul le citoyens comme ni ko constitution bi waxee ci article premier. puisque mhm. da ngay gis ñoo xamante ne nii ci nguur gi la ñu far mais lu leen neex la ñuy wax nit woote na fi nañ leen rey Sonko pour sénégalais yi am jàmm kooku moom mu ngi si jàmm ba léegi. Mhm. te dara fekk ko ci. pendant ce temps nga gis ñoo xamante ne nii ku mel ne Fadilou Keita nga xamante ni jàppam bi temps bi jéggi na dayo kenn hmm. mënu la expliquer kii raison yi tax mu nekk toujours kaso. te dafa laaj lan moo ko fa yóbbu hmm. lan moo ko fa yóbbu j'espère que reyuñu j'espère que hmm. jàpp naa ne reyuñu donc bu nekkee ne dañu ne justice dafa war a tolloole citoyen yépp te loolu nekkul lu ñuy inventé puisque ñu ñëpp ñoo ci déggoo xaatim ko ci suñu constitution. ba mhm. pare def ko article premier. Mhm. maanaam jàpp nañ ne dafa am solo tellement que dañ ko war a jiital ci article constitution bi mais dans la pratique gis nañ ne demeewul noonu li nga xamante ne nii mun nañ ko toppee Ousmane Sonko wala ku ko jege. Mhm. du ñu ko toppee keneen koo xamante ni dañoo jàpp ne ci nguur gi la for wala mu jege nguur gi. donc tey jii nii. li doon gën a euh, euh, euh, li doon gën a yeenu maanaam. bu nee bu ñu dara xew na. ñu ne kat nañ leen déglu ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ko yor. très bien mais bu ñu gisee ku mel ni procureur. Hmm. def fi ay sorties yoo xamante ne nii day wax euh, wax joo xamante ne nii da ngay gis ne lii nii kat ak dëgg gi mais dafa wuute complètement hmm. affaire manka bu gis nañ ko fi rebelle bi ñu fi ja newoon euh, euh, dafa ñëw manifestation réer na ànd ak ñeneen ba léegi ñeneen ñooñu kenn gisu leen. Hmm. donc procureur boo xamante ne dafa tàmm. di wax loo xamante ne nii sénégalais dañuy gis ne lii kat méngoowut ak la réalité. Hmm. kooku tey ñii di bu waxee mooy tax ñu jël jëli waxu soo ko teg ko di xool lan moo ciy dëgg mais bu nekkoon justice ma nga doon doxee nag muy doxee. Hmm. normal bu procureur waxee rek dañ naan ah wax na dëgg gi amatul lel lu ñuy enquête amatul lenn